يقيني إلى الجنة ما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 ñu leen di dig daje ajuma ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ila aljannati ma laysa yuhmadu رسول كريم بيتنا يقيني إلا بالجنات ما ليس يخمد رسول كريم بيتنا سار أحمد Écoute sur RFM. asalaamaaleykum auditeurs yu rajo Futur Média aljuma ci ngoon. Mhm. émission yóbbalu jullit ak Mamor Mbacke comprendre ngeen ci ran émission bu mag bi kon Oustaz maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Omar Mbaw di nuyu bu baax it mboolem auditeurs yi nga xam ne saa si tembe ñu ngi déglu rajo Futur Média rawatina émission bu mag bi. tey danga nga sonn de. waa tey nag xaw na ñëw sonn ndax <laughs> li tubaab yi naan journée bu chargé. macha allah loolu moo ñu daloon. diggante ndakaaru ak jam ñaajo oustaz balaa ñuy xuus ci waxtaan bi ñu dem ci rajo service nga wax ñu waxtu julli yi ak yooyu mhm. ñu dem ñëwaat ay ci ñu dem te ñëw jërëjëf euh, Omar Mbaw jërëjëf it euh, Makhtar Samb jërëjëf euh, mbokki auditeurs yi nga xam ne saa se tembe yéen a ngi toog di déglu rajo Futur Media ca kon ñu doore ko ak rajo service bi muy ñaari ponk yoo xam ne rek ajuma ju jot daañu ci ànd ak yéen bu ci njëkk moom moo di waxtu julli yi fàttali leen ko suba ak jàmm 29 octobre lay doon ci atum 2022 dëppoo ak ñetti fan ci weeru rakk ci gàmm ci atum 1444 Eh, daañu koy doore file ci Ndakaaru Ndiaye Jël Diop eh, bi nga xam ne moom moo di capital bu Sénégal bay ci sawe wu tànk eh, suba ak jàmm daañu julli waxtu suba 5h46 tisbaar 13h17 takkusaan 16h17 minutes timis 18h42 minutes gee 19h53 minutes région Diourbel ak dëkk bu sell bale di Touba Mbacké la ville sainte ñoom suba ak jàmm 5h46 la Makhtar Samb ngeen baal ma ma dellu siwaat ci waxtu euh, julli file ci euh, raison de Dakar euh, suba ak jàmm ñu fàttali leen ko 29 octobre lay doon di ñaar fukki fan di ñetti fan boog ci weeru rakk ci gàmmu ci atu 1443 kon Dakaru Ndiaye la ñuy dellu siwaat suba ak jàmm daañu julli suba 5h40 5h52 minutes tisba 13h23 takkusaan 16h23 minutes timis 18 h 59 euh, minutes euh, muy euh, fii ci Ndakaaru Ndiaye Jël Diop région Diourbel ak Touba Mbacké la ville sainte ñoom suba ak jàmm 5h46 la ñuy julli suba Tisba 13h17 takkusaan 16h17 timis 18h42 gée 19h53 minutes Fatick di dëkku président Macky Sall ñoom suba ak jàmm 5 h la ñuy julli suba Tisba 13h19 takkusaan 16 h timis 18 heures 44 minutes gee 19 heures 55 minutes Louga loo di kër mbër gu bala ñaan ñoom ñoo ca topp ci suba ak jàmm 5 heures 44 la ñuy julli suba tisba 13 heures 15 takkusaan 16 heures 15 timis 18 heures 40 minutes gee 19 heures 51 minutes Kaolack Ndangaan ak Medina Baye Niass dëkku seexal islam El Ibrahima Niass di Baye Niass foofile. Euh, fa la ngeen géneew nekk di dëkku euh, Mbakumba Bey suba ak jàmm 5h48 la ñuy julli suba euh, tisba 13h19 takkusaan 16h19 timis 18h44 gée 19h55 minutes Kolda suba ak jàmm 5h41 minutes la ñuy julli suba tisba 13h12 takkusaan 16h12. timis 18h37 minutes gée 19h48 minutes. Matam dëkku Ali Bandel Niang ñoom suba ak jàmm 5h48 euh, minutes la ñuy julli suba tisbaar 13 h ba tey takkusaan 16h12 timis 18h37 euh, minutes gée 19h48 euh, minutes Saint-Louis Ndar Géej dëkku El Hadji Alioune Badara Diagne Golbert waa kër Malal Signor Diagne yooyu le Euh, suba ak jàmm 5h44 la ñuy julli suba tisba 13h15 takkusaan 16h15 timis 18h40 gée 19h51 minutes euh, Tambacounda dëkku Moussa Omar Gueye ñoom suba ak jàmm 5 euh, h la ñuy julli suba tisba 13h09 takkusaan 16h09 timis 18h35 34 minutes gée 19h50 45 minutes Thiès kaay benn dëkk yaari gaar. ak euh, Tiwaawan la Virgente dëkku Seex Seydi Hadji Malick Sy jàpp Ndiassane Canaba sekk ak euh, piir gu rëy ak euh, piir gu ndaw piiru xaari Amar dëkku El Hadji Mamadou Ndoye Bane dëkk boobu fa la ñu Seex Anta Diop nekkal borom RFM Thiès Seex Anta Diop suba ak jàmm 5h50 la ñuy julli suba. Tisba 13h21 Takusaan 16h21 Timis 18 46 minutes gee 19 heures 57 minutes eh, Ziguinchor Casamance jàpp Bignona ñoom suba ak jàmm 5 eh, heures 48 la ñuy julli suba tisbaar 13 heures 19 takkusaan 16 heures 19 minutes timis 18 heures 44 gee 19 heures 55 eh, minutes Makhtar Samb loolu mooy waxtuy julli ci mboolem Sénégal ñu jàll ci li ci topp. yàlla bu la neexee jéggal na tooñ yema jiital bu la neexee jéggal ma tooñ ñi ci yoon wi matadee fii la yam fi man yow kamaal nga jërëjëf Makhtar Samb leneen la nga xam ne rek moom mooy tëj tëj rajo service bi mooy bis yi nga xam ne rek daañu koy euh, moytu kenn du ci tukki kenn du ci daloo lu bees tàmbali ci dara fas ci ab sëy euh, xarafal wala watu yooyu yëpp daañu koy moytu ci bis yooyu moom laa leen di bëgg limal fàttali leen suba ak jàmm. Euh, samedi lay doon di 29 ci weeru octobre ci atum 2022 wala dëppoo ak ñetti fan ci weeru rakk ji gàmm ci atum 1443 bis bi euh, bokk na ci nga xam ne suba ak jàmm daañu ko moytu lu may loolu itam altine le 31 octobre 2022 wala dëppoo juróomi fan ci weeru ko euh, rakk ji gàmmu moom itam daañu koy moytu. lu may loolu mardi le 8 novembre 2022 wala dëppoo fukki fan ñetti ci weeru rakk ji gàmmu moom itam daañu koy moytu vendredi 11 novembre 2022 euh, wala dëppoo ak euh, fukki fan ak juróom-benn ci weeru euh, rakk ji gàmmu moom itam daañu koy moytu dimanche le 13 novembre 2022 wala dëppoo ak fukki fan ak juróom-ñetti ci weeru wolofit daañu ko moytu mercredi. le 16 novembre 2022 euh, wala dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom benn ñaar fukki fan ak benn ngeen baal ma ci war wolof yi euh, daañu ko euh, moytu samedi le 19 novembre 2022 wala dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wolof it daañu ko moytu lu may loolu lundi le 21 novembre 2022 wala dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wolof it daañu ko moytu mercredi le 23 novembre 2022 wala dëppoo ñaar fukki fan ak juróom ci weer wolof it daañu ko moytu Euh, fàttali leen sodi le 24 novembre 2022 mooy bisub ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru rakk ji gàmmu euh, ci la ñuy séentu weeru rakkaati euh, weeru rakkaati gàmmu mu di rabihu awal la ñu génn rabihu saani la ñu nekk kon jumaado ula ñu ngi ko war a séentu jeudi le 24 novembre 2022 mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yi ci rabihu saani ay ci kon mbokk yi loolu mooy lu jëm ci wàllu ko rajo service bi xanaa kay bala ñu koy daaneel ñu nuyu bu baax suñu mbokki wolof yi eh, di leen ñaanal guddi jàmm pël yi ak tukulóor yi ma leen di wax jam hiri eh, séeréer si naa naafiyo ngiropo joolaay kuti yom ku li ñoom ñoom de saafuñ eh, soose yi ma ne di wax mandim mandim kool saraxulee xale la bambare ek soninka yek mandinka yi avinitile français bonsoir anglais how are you italien buonasera arabi masa ul xayri siin waayi wancang ni haw delloo nuyu murid yëpp di waa kër eh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul eh, Tidiane yi di waa kër Cheikh Seydi Hadji Malick Sy xaadir eh, yi di waa kër Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani yi di waa kër maam Abdoulaye Niass canaba canaba di waa maam Amari Ndak Seck waa kër Cheikh Omar Foutiyou Tall salaamaaleykum suñu mbokki jàng bi di catholique yi madame Guèye nuyu naa la Omar Mbaw jaajëf am na solo man sax euh, dama la doon xool rek ndax neexaay gi ak importance bi mu bi mu am macha allah. <laughs> macha allah la euh, Oustaz Sànq bi may ubbi maa ngi lay naan da nga sonn. waa niru na ko nag. da nga sonn de bët yi dañoo xonk. te sànq ba léegi gis naa la ngay lijjanti ay lekk ay naan. <laughs> est-ce que feeñul waa xam nga rek damay bañ suñu mbokki ndaw ko ndaay di ma summi. waaw <laughs> d'accord pour pour gars yi comprendre pour gars yi tey jii ci ngoon da nga nekkoon ca Diamniadio. Mhm. presque ay heures yu bëri ay waxtu yu bëri. Mhm. ci inauguration imprimerie Impact Safa Group. Mhm. mi nga xamante ni Youssou nduur taxawal na ko ci teewaayu njiitu réew mi. njiitu réew mi nag yëkkati ay kaddu ne. kontaan na lool ci Youssou Ndour ndax emplois yi muy créer ci réew mi. nan la demee woon foofu. jërëjëf Mbaw yaakaar naa ne fa nga am na solo parce que dañuy wax ne actualité te li nga laaj ni mooy li mujj ci actualité wu tey ci bis bi bala may dugg ci loolu damay jëfal di ñaanal ki ñuy wax Youssou Ndour yal na ko yàlla defal jàmm. ki ñuy wax Youssou nduur yal na ko yàlla may gudd fan. ki ñuy wax yuusu Ndour yal na ko yàlla may wér ki ñuy wax yuusu Ndour yal na ko yàlla defal jàmm xam nga lu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñoo jàngaloon ci hadis ne bëgg sam réew bokk na ci gëm yàlla hubbul watani minal iman mu jàngalaat ñu feneen yi ki gën ci yéen mooy ki gën ciw askanam mm-hmm. ndax dégg nañ li ma wax am na solo macha allah. bëgg sam réew nag mi ngi tàmbalee ci jariñ sam réew. Mhm. gis nga ko mel ni yuusu nduur mii boo demee ci alxuraan da ko ciy fekk waxuma wax yi jaahil de. ndax baax baax yi muy def. alxuraan moo ne wa am maa yanfaxu naasa fa yam ko su fi lardi. Mhm. alxuraan mu ne képp ko amal nit ñi njariñ alxuraan néewul ko amal jullit ñi njariñ mhm. néewul ko amal catholique yi njariñ néewul ko amal siif yi njariñ ku amal nit ñi njariñ wa amma maa yanfaxu naasa fa yam ko su fi lardi nee na saa soo amalee nit ñi njariñ danga fi yàgg macha allah te Youssou Ndour amal na nit ñi njariñ maa ngi ñëw de ci question bi mhm. introduction rek laay def Sëriñ Tuubaa waxoon wax ju am solo ne jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla dafa niroo waaye bokkul mhm. mu mel na dañ ne ko mbakke lan moo ko wutale mu ne jaamu yàlla ay cër a koy def waaye liggéeyal yàlla ci jaam ñi lañu koy defee daan képp ko amal nit ñi njariñ amal nga yàlla njariñ te ko amal yàlla njariñ kaw suuf see gën ceew biir suuf si mu dëppook aaya bi ma léegi ci alxuraan mu ne waaye képp ku nit ñi njariñ amaloo yàlla njariñ te ku njariñ biir suuf see gën ceew kaw suuf si xam nga na lan moo ko yóbbu sawara déedéet du mooy yàlla ga du jaamu xërëm ga du gam woote ga mu woote woon ne maay yàlla loolu lépp yàlla mën na koo jéggal waaye yàlla da koo yóbbu sawara ci koo sub yàqkat la woon ci kaw suuf te amalul woon kenn njariñ dafa masam ko ñëw ci sëñ Tuubaa ni ko yéen borom xam-xam yi dangeen di wax naan firxaw na sawara la jëm mhm. te gisuma benn yax ci alxuraan bu wax directement ne inna firxaw na fi naar maanaam mooy firaw na sawara la jëm alxuraan wax ko directement mais wax na ko indirectement xam nga nu mu ko waxee dama lay wax aaye bi tekkil la ko ba noppi soog laa ñëw ci firin mi gën a suufee sëriñ bi ne ko xanaa jàngoo ci benn aaya suñu borom wax ne inna firawna la haalin fi l ardi wa innahu la min al musrifina mu ne ko ah kay mu ne ko jàngoo feneen yàlla wax ne wa anna al musrifina hum asaabu naar mu ne ko ah kay bu njëkk bi suñu borom dafa wax ne firawna bokk na ci yàqkat yi ci kaw suuf waxaat ci beneen aaya ne yàqkat yi sawara la ñu jëm waaw bu fekkee man dama ne képp ku nekk fee ci rési ba nangam ak nangam waa léegi ña ca rési ba kay ñoo ko moom ndax ñoom laa waxal waa léegi nag ma ne leen yéen ñi yéen ñi ne ci rési bi wax ji yéen a ko moom ba noppi waxaat ci sama kàddu ne Amady Ndiaye moo nekk ci rési bi kon kay moom laay waxal léegi nag lan moo tax suñu borom rëbb na kon Firawna yàqkat la woon ci kaw suuf ku mel ni yuusu nduur réew ma sañoon danga ci am lu bari Sénégal boo amoon Youssou nduur yu bari wallahi Sénégal romb na fii di dem xam nga loo tax ku ne xam na ni Youssou Ndour ba mu waree jóg jóg na tey moom la ñuy wax de parce que moo taxawal li mu taxawal ni nga xam ne ku def ab safaan ñu dénoncé ko ku def lu baaxee dañu koy yëgle. ñu wax ko loolu mooy diine. loolu mooy alxuraan. ku def lu baax nañ ne ko jërëjëf ba ku defut woon lu baax jóg dem defi lu baax. macha allah ku doon def lu bon génn ca xam ne amul njariñ. ba mu waree liggéey liggéey na fa mu jaar moo ko xam. Mhm. ba suñu borom dénk ko dénk ko koom-koom. muy koom-koom moo xam ne lu mu fi yor moom fii ci Sénégal moom Youssou Ndour nit yor na fi lu ko ëpp. te njariñ li Youssou Ndour amal Sénégal asaka ji amalu ko Sénégal. amalu ko wallaahi. dëgg la wala du dëgg. ñaata milliardaire ñoo fi ñoo ñoo fi ëpp xaalis Youssou Ndour. fii Sénégal du jeex. Mhm. waa ndax ñoom li Youssou Ndour def lim lim jariñ Sénégal lim defal Sénégal man waxuma sax affaire tur ak fa mu yóbbu Sénégal dara mhm. daraja jamu am ak ni ñu reconnaître Sénégal jaare ko ci turam ci wàllu culture mais ci côté njariñal réewam côté boobu laay waxe man macha allah njariña réewam mooy taxawal na ay infrastructure ci ab dëkkam jël ay ndawi dëkkam ñu cay liggéey Youssou Ndour la muy employé la muy employé ëpp na mille personnes waxuma la sax ñi nga xam ne dañuy liggéey ci groupe yi muy groupe Futurs Médias ak groupe bii hmm, waaye ñi nga xam ne Youssou Ndour a yor seen lépp te xëyee luñ ko gont luñ ko hmm, hmm. ñoo ëpp groupe Futurs Médias macha allah ñoo ëpp Safa groupe lañ koy waxee xaw ma Moustapha Guèye kon daal royukaay royukaay la. royukaay la ci ñëpp. waa dama ne nag damay poser question kuy wër di tabaxal réewam ak kuy wër di fen kan moo ëpp njëriñ. kuy taxawal réewam. kan lañ war a tàccu. kuy taxawal réewam. kan lañ war a ñaanal. kuy taxawal réewam kan lañ war a sopp. kuy taxawal réewam kuñ war a dimbale. kuy taxawal réewam Youssou Ndour taxawal réewam. macha allah. yàlla naxul kenn. Mhm. nit ñi ñun ñooy naxante ci suñu biir gis nga Sénégal gi dafa toll foo xam ne bis bu la yàlla nattoo ngay wax te bëgg par parloo ci la ngay wax bàyyi boo nga noppi ndax jàppal ne saaw soo waxee dëgg dëgg joo xam ne ñëpp xam nañ ne mooy dëgg naafiq yi bëri gi ñu bëri ci réew mi dana tax ña lay saaga mooy ëpp ña lay défendre. dafa mel ni da nga comprendre peut fi ma bëggoon dem parce que tamit eh, sànq ci eh, inauguration bi. Mhm. ci internet bi ay xale yu bari ñoo ngi doon saaga ne. Mhm. égyptiens yi ñoo ko moom Youssou Ndour moom ko. parce que dañoo dof. Mhm. parce que dañoo dof. parce que ànduñoo ak seeni xel. waa léegi Sénégal la moo mën a waral loolu Oustaz man je comprends pas. ñàkk a xam parce que nit ki bu wérul ci xel mais dafa war a dem faju loolu moo leen dal waaye Youssou Ndour mu dem ba Égypte kay gis fa njariñ mu yenu ko indi Sénégal kay nañ na ko jërëjëf yow infrastructure bu ñu taxaw boo xam ne xaalis Sénégal dugg ci Sénégal espace la leen jox ay ndaw yi Sénégal ñoo cey liggéey waa léegi loolu moom ku ko tàccuwul ndax war nga koo xarab yéeme na de en ko cas yow kay amoo ndox nit ki dem ci dëkk boo xam ne am na teen am na ndox yow sa dëkk amul teen amul ndox mu dem roon ndox indi la nga naan ndox mi dëkk sàngam la jóge loolu kay wax dëgg yàlla. yaa xayti du waxi nit. wala dëkku sangam moo ko moom. waaw te yaa yaa ci yaa ci naan yaa ci sangu. xam nga xam nga ñooñu mooy ñan. yaa ciy jàpp <laughs> nañ ma baal ci baatu dof bi may wax mais ay wolof la ñuy wax pour ñu comprendre ne wolof aw langage la comme ñëpp. Mhm. tey boo toogoon ci ci français naan fuu fuu. Mhm. mais kenn du la mere. Mhm. te fuu mooy dof. baat bi baatu wolof la. pour ñu comprendre bu nit ki di wax wolof. moo yi muy utiliser ñu xam ne wolof lakku leneen. ñu bañ a gis ne. ñu bañ a gis ne. gros mot la guro mot la gros amul. Mhm. guro mot existé wul. gros mot mooy nga saaga nit ki wala nga xas ko wala nangam mais lakk wi la mu tuddee nangam télécommande bii télécommande la ko tubaab tuddee. Mhm. bu ma xamoon na ko wolof tuddee mais na ko wolof di tuddee laa ko war a waxee bu may wax wolof. Mhm. mais kon nañu moytu yooyu. gis nga dof yi nga xam ne ñoo nekkoon ci mbedd mi doon taal ci manifestation yu mars yi. Mhm. ne woon dañuy taali total ak osan mhm. dof yooyu mhm. ñoom ñooy taxaw naan lii dëkk sàng wala dëkk sàng moo ko moom lan laa ci waxoon man ak Amadou Sabar ba station total yi ñuy taal ñaata nit ñoo taal station total seen bàyyi xëy liggéeyul joxeetul dépasse bari na de ah, bari na ñaata nit ñoo taali osan soutien de famille ba xëy joxeetul dépasse liggéeyam yàqu ay tubaab ñoo ci doon liggéey wala ay malien wala ay ganaye ay sénégalais ñoo ci doon liggéey kan moo ko moom lu ci suñu yoon Sénégal ku ne xam na ne problème emploi la am Sénégal amut liggéey ndaw ñëpp nga xëy di wut liggéey problème gaal gi ki dem boo njaay <laughs> ñaata ñaat junni nit ñoo ci faatu bari na waa léegi bu ab liggéey amee ñu ne lii ay sénégalais ñoo ciy liggéey du la xaraam ñu di ci suturloo nga mer ne da koy taal parce que jugewul Sénégal Sénégal moomuñu ko wala nangam ak nangam Sénégal lu mu am mais loolu nag dafa bari ci dëkk yi léegi de ay Mali. parce que parce que parce que ñun africains yi ba tey dañoo xamagul ñooy ñan. déet dañoo war a jàngal ñun ñooy ñan dañoo war a am ay njiit yoo xam ne dañuy xam seen bopp ba pare xamal ñu suñu bopp loolu la ñu manqué. mais loolu est que ñoom xamuñ ko déjà parce que euh, dafay dafay yéeme daal est-ce que xamuñ ne lii daf ñu amal njëriñ. loolu lépp ñoo ko gën a xam xam nga dafa am loo xam ne. tamit des dañuy wax ne ay milliardaires ñu ngi fii comme li nga doon wax sànq. ñooñu bu ñu investiroon ci côté foofu laa jëm fa laa jëm. damaa bëggoon a terminer fii euh, foofu soo soog a dugg fële parce que ñu ngi woon ci Youssou Ndour ak wane na dañ koo war a roy. gis nga ñun buñ comprendre woon ne Sénégal wala muy Afrique li ñu tardeel bokk na ci suñuy mentalité ak suñuy njiit maanaam suñuy xel yu gàtt. Mhm. yu faible yu yem tey ak suñuy njiit yoo xam ne seen bopp rek lañ gëm. Mhm. bokk na ci li tardeel Sénégal malheureusement. malheureusement. loolu nga wax nag solution bu am solo la xam nga dama laa posé benn question sànq ci début bi ne la ñaata ñoo fi ëpp xaalis Youssou Ndour te defuñu li mu def. Mhm. ñooñu dañoo yab seen réew. juddoo cim réew. yaroo ca réew ma. màggee ci réew ma jàngee ci réew ma ci réew ma jàng ca école réew mi. Mhm. gouvernement bu réew mi fayal la. Sénégal ma sax gouvernement Sénégal fay la. Mhm. nga jàng. sa lépp Sénégal yor ko ba nga xëy suñu borom dénk la ay teraanga ay milliards yu dul jeex nga fas yéene mu yem ci sa jëmm loolu yàpp sama réew munu koo weesu man dama jàpp ne sax dañoo waroon a woote loi boo xam ne ku am pili de nangam. force da ngay investir ci réew mi. mais investissement tamit du force de apparemment. non xaaral ma ñëw. Mhm. dama ne dañoo war a kon loo amagul la. Mhm. ci sama xalaat damaa jàpp ne Sénégal war na woote luwaa boo xam ne Omar Mbaw mii. bu amee lu mat un milliard wala cinq cent millions force da ngaa war a investir force la war a doon da ngaa war a investir. loi boobu dina garaaw de. non du garaaw. fekk Omar moo yor parce que ka koy def man na ko investiral yokkal waa force dangaa ngaa war a yokk kay xanaa kooko wax da war a kontaan. parce que boo investiree ca dara di nga yokk état accompagner la. Mhm. nga nga nga dimbale ay famille wàññi ñàkkum xëy mi ci Sénégal Sénégal man a stable loolu kay état bu ko wootee xëy na mën naa am façon bii ma ko waxee xëy na mhm. mën naa am buñ ko doon doxalee duñ ko doxalee noonu mais l'essentiel sance bi mhm. mën naa am bu demee bay am danañ jël sensu lii ma wax moo xam beneen domaine buñ koy doxalee man na nekk mhm. parce que xalaat rek laa joxe cest bañ ko def force daal mais imaginel ki nga xam ne ñaata milliards la yor def ko ci banque yi ñii dem rawale ji ko bitim réew mais milliards yi nga génne <laughs> bitim réew génne Sénégal yëpp ko bitim réew am na fu mu jaar. Mhm. xanaa du ñu amul trace. te dina fa am xanaa jaarul ci ngelaw li. dina fa am njariñ sax foofu. te dafay am njariñ. waa léegi milliards yooyu nag dafa war a des fii ci senegal dafa am dëkk yu am ful la. am na réew yu am ful la xaalis doo ko fa génne seen xaalis doo ko fa génne di ko rawale ci beneen dëkk. Mhm. fa nga koy liggéey ci réew ma nga koy bawaat. Mhm. la nga cay génne di ko yóbbu feneen du leen wàññi dara. Sénégal nag foofu la ñu toll milliardaires yi fi nekk dimbalewuñ kenn ngumbaay ak mbumbaay ak euh, cakkaay euh, xawma ngistal dong lañ fi nekk te yor alal judul jeex te tabaxuñ dara ba noppi nag li ma ci gën a metti mooy topp ci askan bi di fen rek état bi def fi dara nangam ak nangam man Mame Mor Mbacke mii xanaa man euh, man naa ni awma salaire mm-hmm. man naa ne damay taaba taaba mais employé naa ay nit di leen fay. Mhm. la ma man la ma tollool maa ngi koy def. macha jàpp naa ne bu ma ko rombee dinaa def lu ko gën a kawe. kañ nga may jël man. <laughs> no yow moom xam naa samay salaire soxla ko parce que yow yaa ngi ci yaa ngi ci kii. oustaz pour dëggal li ngay wax. waaw may ma rek benn plus glisser benn affaire. Mhm. am naa sam benn copain tubaab. Mhm. ba léegi. mënul gëm ne. Sénégal réewum bu pauvre la. xam moom ville lay liggéeyee bu demee par exemple Sénégal ñu ne oto bu gën a cher ci àdduna bi génn na génn na États-Unis wala génn na Allemagne wala génn na temps fii lay njëkk a daw quinze jours mhm. mu daw biir Dakar te moom da koy gis ah. moo tax à chaque fois mu di ko Sénégal am na ñu bëri ñu am xaalis ñu fi nekk mhm. mais répartition bi maanaam ñoom nuñ ko nuñ ko jëlee rek mhm. bañ ko séddalee moo tax affaire yi métti da gis ko am xaalis yor ay milliards dëkk ndoom doom dara bu xëyee benn góorgóorlu la parce que amuñu esprit de partage loolu mooy suñu problème Sénégal inspiré am gëm-gëmam xam nga mooy lan bu Omar Mbaw yoree ay milliards Mamor Mbacke yorul dara yor as tuut xam nga lan mooy inspiré Omar Mbaw nu mu koppatee li Mamor Mbacke yore kas néew doole ci li mu yor. te ba pare sax ñoom ñu yor xaalis des fois dañuy naan ñi yorul seen responsabilité la dañuy fàtte yàlla dañuy naan aha man liggéey naa ba am milliard lu tax diw. liggéeyul ba am milliards yooyu. te pourtant yow parce la wala affaire yooyu. pourtant yow fa nga jaar yow fa nga jaar ba am milliards diw jaar na fu ko raw te amu ko. yàlla moo mooy séddale noonu rek ndeysaan. milliardaires yi Sénégal yii yi fi nekk daanaka ñu ci gën a bëri kan moo ci am bag bëriwul. waaw yow fa nga jaar ci njàng góorgóorlu am entrée en am BFM dem bac dem def licence nangam ak nangam coono yi nga daj. Mm. yow pour am xaalis am na ko am xaalis te dajul coono yooyu kon kay moom ba mu jàpp ne yow da ngaa yaafuus yow def nga li nga war a def yàlla séddu la dangaa am alal ci alalam jii suñu borom dana ko am séddaleel Omar Mbaw bu ma duggoon ci studio bi fekk fi ñaata cinq personnes ñu toog mu ñëw indi cinq butéelu ndox jox la ko Omar Mbaw war ngaa xam ne cinq butéelu ndox yi pour yow. wallaay mënuma ko naan lépp. mënoo ko naan. absolument da ngay jël benn cinq personnes fi nekk ku nekk nga jox ko butéelu ndox. wala sax nga joxe ñaari dese ñetti. mu ngóob. Mhm. loolu moo loolu mooy li tax suñu borom di jël nit di ko jox alal ju bëri. yàlla na kum jox alal daf laa dimbale parce que dafa bëgg nga jaamu ci yàlla ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. Euh, borom alal yi dañ doon def ci diine ku mel ne Seydina Ousmane Ibnu Affan. Mhm. radiyallahu anhu di def ci diine jëf joo xam ne daal la leen ci di yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon dikki àjjana ñi amul alal xawoon na leen a metti bañ dem ci yonent bi alayhi salaatu ne ko waaw ñii nga xam ne ay borom alal lañu li ñuy jëf ci diine ci aw yiw ak li nga leen ciy dig li leen ci lislaam di dig ñun ñi amul alal mënuñu ko am yonent bi jox leen ay baat ay baat yi tudd yàlla ne leen dee leen ko wax mhm. ñoom ñu koy wax borom alal yi ñoom itam di jël baat yooyu di ko wax boole ci ak di def lañ doon def ñu ñëw ci yonente bi ñaxtuwaat mu ne leen ah loolu nag wërsëgu yàllaa mm-hmm. yàllaa leen ko jagleel munuma ci dara loolu mooy nangub dogal mm-hmm. léegi kon li la yàlla jagleel te xañ ko sa moroom defaloo ko luy tax mu def mu defal la ko waaw léegi Omar Mbow jërëjëf ci laaj bi nga laajoon léegi ki jàpp ne Mamour Mbacke daa yaafoos amulub lijjanti wala daal dafa yambare ba tax amul alal ji ma am waaye Omar Mbaw loo defal yàlla ba tax mu jox la ko loo ko defal foo ko féete da koo dema lu xew hmm. koo defal lu mënu wala da nga koo lijjanti soxla su mëntoon na lijjanti hmm. wala da koo defal ko jomb lan nga defal yàlla ba tax mu jox la lim la jox lan laa def yàlla man ba mu xañ ma lim ma xañ loolu mooy question bi kenn defalul yàlla dara kenn deful yàlla dara yàlla mooy seet ku ko neex mu jox la kam jox nag dafa war ci moom mu dimbale ñam joxul ku mel ni li Youssou Ndour di def nañ ko wax macha allah moo tax encore une fois Youssou Ndour yàlla na ko yàlla sàmm li président de la république def nag muy lu may rafet rafetlu muy dafa ñëw sant Youssou Ndour gërëm ko sant ko gërëm ko en tant que Youssou Ndourum Iliman Ndour de déedéet. Mhm. en tant doomu Sénégal bu jël alalam di ko investir ci réewum Sénégal. noonu la ko waxee sax noonu la ko président waxee. macha mu sant ko gërëm ko léegi nag loolu président encouragé na doomu Sénégal yi ñoom itam ñu def ni Youssou Ndour di def waaye yow miy toog di wax ak di mbel yi dama lay wax la Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina waxoon rek. ba muy jëf nit ñi coow seex Ibrahima a ah, doom a ah, sëñ Bamba ëllëg yomal la yàlla di wax bàyyi jëf. macha allah yow mi toog na ko président Macky Sall waxoon ci sab internet di kacc kacc di kacc kacc di saaga di wax lu la neex. Uh-huh. ëllëg fan la la yàlla de fayee yow. bàyyi kee nga xam ne moom ak dundam lépp dafa jël alalam di ko delloowaat ci askan wi. ku ne xam ne ne ku mel ne Youssou nduur li mu am tey. te bu ko neexoon gis nga Youssou Ndour li mu am demal Amérique def naa ci ay gis yu xóot. gis nga waxuma la sax euh, rapport américain yi waxuma la ministère yi waxuma nangam mais ñi nga xam ne daanaka ay comédien lañu foofu. Hmm. xam nga ko ci dajale asut loo njëkk a def jënd jet privé. Hmm. jënd hectare nangami junni hectare yoo xam ne sa kër nga fay def sa kër ah, demal demal États-Unis li ma lay wax mën ngaa dugg ci kër benn artiste ak sa oto mën ngaa dawal un kilomètre te doo àgg moom ci fi mu dëkk ci biir kër gi. si si comme 50 Cent rek moom. mu ngoog kër gi macha allah mu ngoog jërëjëf. Youssou Ndour eh. amul jet privé. Hmm. bu ko neexoon mu jënd ko. Hmm. bu ko neexoon mu dagg nangami junniy hectares yoo xam da koy jënd ci xaalisu boppam moom ko dëkk fa. dëkk fa bañ a def dara. kër gam dëkk nam toll mooy ni këri Sénégalais yëpp toll. macha allah oto ba muy war moom la Sénégalais yëpp di war. la muy sol moom la ñëpp di sol amul dara lum wuutale digganteem ak ñin jàpp ne xëy na moo leen ëppale au contraire. dafa jël alal ji ko suñu borom jox ne ah yéen a ko moom delloo delloowaat naa leen ko. macha allah kon ñu naan ko jërëjëf Youssou Ndour. jërëjëf yal na yàlla sàmm. jërëjëf ca kaw ca kanam. jërëjëf Youssou Ndour ci kàddu yooyu la ñuy yemee foofu ci première partie bi. Hmm. première partie bi parce que dañoo war a wax aussi ci coowal bi am Touba. Hmm. vers drogue. Hmm. saisine drogue foofu noonu ba policier chef policier bi ay yëkkati ay kàddu. doon li nga xamante ni da nga koy ñaawlu yow. waaw loolu de xam nga Touba. ay sénégalais ñoo fa nekk. Mhm. du mu réew pour mu leer pour mu leer nañ réponse bi avant Touba du am réew. Mhm. Touba ab dëkk la bu nekk ci réew muñ naan Sénégal dorog bi ñu jàpp jàppe ko Touba Sénégal lañ ko jàppe mhm. est-ce que yéen a ngi dégg communication bi ma leen di wax Touba produirul dorog Touba bayul dorog tuuba créewul dorog Touba ay oto fay dugg bu fa dorog duggee. Ah, dañ ko faa dugal kon leer na. cest dire dañoo war a saytu oto yi fay dugg balaa mu fay dugg ñu lay naan. Ah, dama dama bëgg ñu dégg fi ma lay tonte man. Mhm. dafa am baat yu ma wax te dama bëgg ñu dégg ko. non man comprendre naa la. waaw auditeur bi peut danga koy gën a oyofal mais peut être am na ñoo ñoo xamante ni comprendre nañu. waaye moo tax dama ne Touba. Mhm. du am réew. Mhm. boo xam ne dafa am ay falanceer di saytu ay falanceeram. Touba du pays boo xam ne dafa tëj ay falam falanceeram wala moom boppam Touba ab dëkk la bu nekk ci réew muñ naan Sénégal dorog ba ñu jàpp tuubaa jàppewuñ ko Touba Sénégal lañ ko jàppi parce que Touba biir Sénégal la nekk encore une fois ma ne la Touba produirul dorog bayuñu fa dorog sosul dorog dorog bu dugg tuubaa dafa jaar ci ay tëlee ki oto dugg fa waa ñee yaa fuus ba mu dugg fa ñoom kay ñoo war a wax seen bopp Euh, nañ ma baal ci kàddu gi mais bu ñu fontoo Touba ay nit a fa nekk ab dëkk la mm-hmm. li war Sénégal moo ko war li li ñu war ci Sénégal ci sécurité moo leen war ci Touba ci sécurité Touba mooy deuxième pays ci wàllu population deuxième euh, dëkk deuxième ville mm-hmm. ci Sénégal gannaaw dakaar ci wàllu population ci wàllu économie ak leneen ak leneen mm-hmm. waa kon li ndakaaru soxla ci sécurité Touba soxlawu ko. ok benn gendarmerie spéciale moo fa nekkoon. police ya fa nekk yaakaar naa ne ñett la gën gaa bari Touba ak na mu toll. escadron bi bu yàggutoo la ko fa président Macky Sall yóbbu. est-ce que tamit man ci buntu Touba ba. est-ce askan wi bëgg nañ ñu fay amal yooyu. xaaral ma wax la xaaral ma ñëw foofu laa jëm. Mhm. léegi Touba xam nga lan mooy Touba. mooy ko jegee dakaar dem dëkk Touba. ku jugee Tamba dem dëkk Touba. ku jugee maatam dem dëkk Touba ku jugee Saint-Louis dem dëkk Touba ñu ñooy Touba. melting pot quoi. mu bokk waa léegi nag kon lan moo tax souvent toujours ñu bëgg di suy c'est Touba Touba Touba ay sénégalais ñoo fa nekk. Mhm. sécurité bi war ñu sécuriser ko fépp moo war ñu sécuriser ko Touba Touba dorog bu fa dugg dama ne ci ay oto lañ ko dugal mu jaar ci ay tëli romb police ak gendarmerie dugg Touba parce que Touba produire ñu fa dorog. kon bu ñu naan baa nga Touba nañu xool fa mu jaar ba dugg ak ña ko fa dugal ak ka ko fa dugal ak la tax mu dugal ko fa ñu lijjanti ko loola kay damaa yaakaar ne suñu force de sécurité et de défense yi loolu lañ leen fi tege mais paa ñuy joxeñ naan Drogba ngi Touba wala dorog bi dafa xëy na Touba dafa mas a taw dorog xëy na. <laughs> waaw force de sécurité aussi. mais li ma mais li ma la wax est-ce que dégg nga ko. dégg naa lu ay tali ñoo fa dugg. Uh-huh. ay oto di fa dugg. maanaam contrôle bi ci balaa muy dugg foofu. mu ngoog. d'accord dorog bi jógewul ci asamaan si wadd Touba. Mhm. Touba amul usine buy produire dorog yaakaar naa amul amul sax Afrique waxantuma la ak Sénégal. Mhm. jëlale naa Touba kon fan la jaar ba dugg Touba ñoom ñoo war a poser question bi seen bopp ñoom force de sécurité de défenses yi ñu ñu dénk suñu ngir réew mi état gouvernement. Mhm. loolu mooy première réponse bi ma lay jox deuxième bi. ñu soog a dugg nag ci. <laughs> oustaz yaa ngi toogaay bi de. ah non parce que da nga ma laaj lu sensible loo xam ne. Euh. ku ciy wax dañ ciy waxee ak xam-xam ak luñ mën a dégg. macha allah suñu xam-xam su gàtt su néew sii. Hmm. rek lañ ci mën a waxee. bi ci topp mooy Touba dëkk la boo xam ne dëkk bu spécial la. gaa amul statut spécial boo xam ne tey dañ naan Touba sañ naa doxalee doxalin wuute ak doxalinu Sénégal. mais Touba ku ne xam ne dafay spécial bi ci njëkk parité bii ndax am na benn dëkk bu ko sañ te respecté ci Sénégal. waaw surtout ci palu maire yeeg affaire yooyu. parité ñëwal ci parité rek. Mhm, Touba yoonam nekkul ci parité. Mhm. loolu spécial lu élection dëkk yëpp dañoo fal seeni maire Touba amul ñaari maire ñett kenn ki ngay wooteel wala nga bañ koo wooteel mais moom la fa sëñ bi teg. Mhm. Touba ci spécialam Sénégal dañ fiy tere cigarette. tuubaa dañ ko fay tere. Sénégal dañ fay tere mees. tuubaa dañ ko fay tere. Sénégal dañ fay tere lu gàtt. Touba dañ ko fay tere. Sénégal dañ fay tere football. Touba dañ ko fay tere damaa bëgg nga naan déedéet nit ñi di dégg. déedéet waaw. <laughs> même ci salle yi sax musique bi muy génn ci. Touba ndax musique dañ koy tere Sénégal ndax dafa am loi bu koy tere. Hmm. tuubaa dañ ko fay tere. Hmm. waa léegi loolu kay loo spécial mënu koo weesu. Hmm. sëriñ Abdoul Ahad xalif général des Mourides 1968 ba 1989 moo bindoon benn bataaxel benn leetar président Abdou Diouf leetar ba sëñ Abdoulaye da koo signé sëñ Saliou signé ko. sëñ Mourtala signé ko sëñ Soxay bu signé ko sëñ Abdou Khadi signé ko ñoo fi nekkoon ci doomi sëñ Touba yi. lim bëgg ñu bañ koo def Touba parce que sëñ Touba. moo sañtu dëkkam. sëñ Touba bi muy sanc Touba 1888 la booba Sénégal doonagul pays bu am président tënku ci ay loi tubaab yi fi nekkoon sëñ Touba sancub dëkkam ci àll ba teg fa ay luwaay boppam nag loi islamique li l'islam bëgg sëñ Touba teg ko ci ab dëkkam en tant que jullit macha allah yàlla def sëñ Touba bàyyi fa ay xalifa yu mat xalifa mhm. ñu dikk appliqué loola rawatina sëñ Abdou Lahad xoddaamul xadim yi ñuy wax a safinatu amaan sëñ Abdou Lahad moo ko njëkk a yi safinatu amaan sëñ saali wa ko créé xuddaamu xadim sëñ taxaa ko créé Touba police du aaye mees polis du aaye cigarette police du aaye sollu gàtt te Touba dañ ko fay tere kon am na ñeneen ñu koy tere ñu dul police parce que police loolu bokkul ci seeni loi mhm. luwaay police ku meesu jàpp leen ko bokk ci police lañ leen tereloo ku sollu gàtt jàpp leen ko bokk ci kuy tux cigarette jàpp leen ko bokk ci te loolu dañ koy tere Touba kon kan moo ko war a tere loolu mooy deuxième question bi. deuxième réponse deuxième réponse bi bokk jërëjëf. comme que police ñoom seeni loi loi pénale bi xawma code pénal bi nangam néewu leen ko sol lu gàtt jàpp leen wala ko tux cigarette jàpp leen te Touba dañ ko fay tere demal police bi nekk Touba lañ fa bind commissariat spécial. gendarmerie bi njëkk tuubaa gën faa mag gendarmerie spéciale lañ ci bind spéciale hmm. lu muy firi waaw lu lu spécial rek. lu spécial. lu moo ko demandé pour mu ñëw fa mu ne waaye dañuy tënku nag ci statut dëkk bi Touba du Thiès du dakaar du Tamba du Matam Touba ville bi spécial la ci wàllu diine loolu itam képp ku fa nekk ngay homme de tenue gendarme wala policier wala koo man di doon da nga cay tënku. da nga war a wu ci règle yi fa nekk. sandarma bi ba police bi sañ naa jëlu cigarette am jaar fii ci corniche bi tox kenn du ko interpeller bu ko defee ca wetu jumaa ja dootu ko defati en tant que takk der. bu Touba kon kay wute am na. jumaay Touba bu ko fa defee dootu ko defati. Mhm. te du ko yeggale kon kay wute am na. Mhm. waaw léegi nag wuute googu nañ ko nangul sëñ Touba. kon daal au lieu mu fay def ay loi moom moo war a tënku ci ay loi foofu. moom moo war a tënku au delà au delà de loi yi nga xamante ni ñëpp xam nañ ko waruñ ko def. dama dégg commissaire commissaire Ndan commissaire bi nekk Touba dama fàtte tur bi fàtte naa tur bi waaw. mu def benn déclaration di dénoncer xuddaamul xadiim mu juum torom nag ci wàllu communication. malheureusement mu doon daayira ko waaw xuddaamul euh, xadiim association. association kuréel la goo xam ne xalif général des mourides ñoo ko créé. comme safinatu amaan ni ko sëñ saaliwu ker woon mhm. xam nga li ma la wax mhm. njuumte ba njëkk ci communication bi nan ngay toogee nga wax ay nit ne xuddaamul xadim am nañ sañ-sañu jàpp nit indi ci ñun police nga wax ñaari baat ñett ne amuñu sañ-sañu jàpp nit di ko indi amuñu sañ-sañu jàpp kenn quel contradictoire àndul quoi dafa wute dafa wute <laughs> yéen ñi déglul déglul déglul déglul wax ji hmm. beneen bi ci topp mooy nga ne fekk xale yi football ñu jàpp leen mais sëñ Touba moo tere football Touba kon moom tuuti na ci football loo ay nit Touba moom munu ko dafa juum ci communication te damay jàpp ne du moom mooy ki waroon a wax moom commissaire boobu nekk Touba commissaire wu commissariat dama fàtte tur bi mais du moom mooy ki waroon a wax parce que police muy gendarmerie dafa am lu leen tënk am ku leen jiite muy ministre de l'intérieur force de sécurité de défense yi bi war a bi ñu war a jàllale ak bi wërta am ministère de l'intérieur moo koy xaatim président de la république moo ci joxe ndigal. Mm-hmm. du keree woon nañ fi ay ASP ñuy jàppale police. Mm-hmm. ba léegi kay ba léegi. Mm-hmm. ASP yooyu président de la république moo ko créé loolu seen domaine la. xuddaamul xadim xalif sénéral des mourides moo ko créé déggoo na ci xëy na ak ministère ba ak président ba léegi bu fekkee am na ci lu ñuy dénoncé wala lu ñuy jubbante kilifa yooyu ñoo ko war a réglé waaye du moom commissaire boobu. donc moom dafa war a tënku ci. dafa war a tënku ci moom lañ ko sant. ci luwaa yu fa nekk luwaa ya fa nekk Touba dafa am gis nga kenn mënu ci dara. tuubaa dafa am réalité yi boppam. Mhm. mënuñoo wax a wax a wax wax ba dajj ko baa ñu dind ko c'est impossible mënul ne Touba mënta yem ak fépp. Touba adduna du neex ba nga ŋàbb sab cigarette di dux di tux ci mbeddi Touba yi. moom lan moo war a nekk te terewuñ ko Sénégal luwaa terewu ko. lan moo war a nekk rôle moom. li war a nekk rôle mooy bu fekkee dafa gis loo xam ne jàpp na ne du nii. lan mooy hiérarchie. hiérarchie na wax kilifaam ay kilifaam ya ko fa yebal. Mhm. na leen na leen na leen avisé ne leen nangam ak nangam am na kilifa yi war a jël décision bu jotee ñoom ñu jël décision mais moom moom mën naa tas lu xalif général de Mouride sos. Mhm. mën na koo tas. Mhm. tuuti na ci. kon waxam ji amul njariñ sañ am sa moom sëñ Abdou Lahad dégg naa ko mu génn joxe benn réponse man d'accord naa ak moom cent pour cent moom sañ am sa njiitul xuddaamul xadim la mu xam ba wax xaw ma ko la mu yëg moom la mu jot ci information ba wax man jotuma ci fa mu joti kàddoom ak ka muy waxal xëy na man sama kàddu joti fa ak ka muy waxal moo tax la muy wax man tiyaab il a parfaitement raison ci la mu wax. lu mu wax ci ñi ko déggul en fait lu mu wax. parce que dafa dénoncer commissaire bi wax ne li mu wax teggu ko fenn. ok waru ko woon a wax tuuti na ci wax ko. wax na leneen ak leneen loo xam ne xëy na kàddu yi boppam la. mais man li ma d'accord muy moom commissaire bi dafa mal placé wu pour di dénoncer que ça soit safinatu amaan wala xuddaamul xadim parce que moom dañ ko faa teg. ay kilifaam ya ko fa teg jiite sécurité Sénégal bi sañ a def sañ a dindi sañ a affecté sañ fal sañ a folli ñooña ñoo sañ a daaj wala ñu daaj. waaye du moom. macha allah am na solo. Oustaz dañuy wax ci coowal armement bi am diggante ministère euh, ci ministère bu environnement. Mm-hmm. dañoo wax ne jël nañ ay milliards yu bëri dugal ko foofu. ñoom nag ñu weddi loolu parce que milliards lañ ci wax ay quarante et quelques milliards wax ñoom nee nañ dix huit milliards rek la. Mm-hmm. lan nga gisee coow boobu bu fekkente ne euh, tu es waaw loolu de maa ngi koy dégg fan yi yëpp xëy na man nag euh, li tax mënaguma cee sori. Mm-hmm. wolof dane benn pàq du lay. maanaam genn kàddu. mënee su cee baasewu ñoom nday mbill yi ñiñ tuumaal ne ñooma waxaguñ. non wax nañu tey nañu ñoom lu ñu utiliser ay dix-huit milliards la yooyu noonu. waa xam nga agul agul somme bi ñu wax. waa xam nga tey jii. président mais loolu yëpp est-ce que ne lu dul am transparence ci mbir mi. moo koy waral foofu laa jëm. xam nga ñun dañoo fal président mu fal ay jawrinam ay ministres am ñoom la denk suñu suñu ngir réew mi mësuñoo am problème mu Sénégal lu tax ñu yor ay arm lu tax ñu yor fetal fuñ ko jëndee ñaata lañ ko jëndee. mësuñu am problème boobu kon bu amee rek yaa quelque chose am na lu xew am na lu xew rawatina ci nguur guy bëgg a jeex guñ ne at ak nangam moo ci des kon lépp lu ñuy def dafa war a leer man ci sama gis-gisu bopp comme mësuñoo am problème boobu bu amee kon am na lu xew rawatina ci nguur guy bëgg a jeex ay quelques mois dese leen fi kon lépp lu ñuy def daa war a leer ndaxte lu nekk mun na see xew lu nekk mën na cee xew. mun naa ne at moo kii moom a fi dese bàyyi ma jël lii rek yóbbaale mu ngoog léegi nag kon moo tax ñoom ñëpp war a doxal transparent mais ñoom ñoo ci raw. Mm-hmm. Macky Sall pour man normalement fii mu toll wëratu la nangu dara di nëbbu Sénégalais yi pour man lépp dafa war a leer. Mm-hmm. parce que dana tax ab génnam day rafet. day rafet bu boobaa président Macky Sall day dem. sénégalais yi di ñaan di souhaité naan kañ lay dellu siwaat lay dellu siwaat wala parce wala Mako Macky Sall nekkoon na fi nekkoon na fi namm nañ ko parce que bu weesoo loolu lu nit gàtt-gàtt xam-xam da xam ne Macky Sall boroom xam-xam la liggéeykat la te liggéey na Sénégal man ànduma ak moom bu élection amoon suba xëy na xëy na xëy na du ma ko woteel xëy na laa wax de <laughs> non am naa sañ-sañu wax ko yaakaar naa xëy na. macha mën naa am duma ko woteel. am nga si droit ah, mais li mu def moom. Hmm. li mu def li mu jota liggéey ci réewum Sénégal moom président Macky Sall ci wàllu infrastructure laay wax man. ci wàllu euh, xëy na économie. Hmm. ci wàllu euh, xëy na li nga xam ne mooy suñu dundin maanaam tabax réew mi. ay hopital ay tali euh, ay ay ay rapport ak yeneen ak yeneen li ci Macky Sall jot a def. boo dajale woon 40 ans yi fi Senghor def 20 ans yi fa Abdou Diouf def 12 ans yi fi Ablaye Wade def ñoom ñëpp li ñu liggéey li Macky Sall liggéey ko ëpp. Ah bon man loolu laa gëm en tant que sénégalais sëñu ma koo wax xanaa duma sénégalais. ah bu dee sa gis-gis la kay mais sénégalais laa sama carte d'identité mi ngi nii boo bëggee ma wan la ko. Sénégal laa juddoo. non moom kay kenn du ko laaj nationalité Sénégal la ci nekk. sénégalais amuma sama gis-gisu bopp. sañu maa wax ne li fi mag Sall def kenn mësu ko fee def. mais loolu laa gëm waxuma ne kenn du ko fi def defi. Mhm. ñi jot a jàll kenn defu ko fi woon. xëy na nit mën naa ñëw suba def lu ko ëpp. Mhm. mais waxtaan nit wax dëgg ca la par parloo man. Mhm. ak bëgg dégg leen ma bëgg neex naa leen meex bëgg tàccu leen ma. du tax may wax man lu ma gëmul li ma gëm laay wax. ku ma ci bëgg nga bëgg ma ci mais ku ma ci bañ nga bañ ma ci. loolu la la si mais li ma gëm mooy lim def man lii laa gis. Mhm. loolu laay rafetlu amaana leneen li nga xam ne leerul te war a leer na leer. lan la ci alxuraan wax ñu dénk benn affaire boo xam ne da ko war a leeral ñëpp xam. yonent bi alayhi salaatu wa salaam noonu la doon doxee ak jullit ñi bañ na ko ba xare buñ masaanaa dem xeex ak yéefar yi lépp luñ fa jëlee bu yonent bi di dikkee da koy présenté nit ñi. te bu koy séddalee ci kanam ñépp la koy séddalee am na ci boo xam ne sax ba mu séddalee ba pare ay critique amoon na lan moo tax critique yi mooy lépp dafa transparent bu fekkoon dafa nëbbatu def ko duñ yëg bay wax mais lépp lépp dafa leer lépp dafa tegu ci yoon léegi nag transparent googu nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon doxe bépp njiit boo xam ne jiital nañ la dénk la noonu nga war a doxe bëri na problème yoo xam ne am na fi entre 2012 ba léegi ci nguuru président Macky Sall lan moo ko waral yu lëndëm yuñ xamul lu leerul moo xam ci communication rawatina moo xam ci ay jëf moo xam ci ay bitse moo xam ci ay infrastructure ba ci hôpitalu num tuddati euh, bi ñu kii toxal bu yàggul ban la ci danteeg wala. waaw Dantec Dantec moo ci mujj. Mhm. lan moo waral problème yooyu mooy lu leerul. Mhm. bu fekkoon li ñuy def dafay leer a à sedd ñu xam fi mu tàmbulee xam fi muy jaar xam fi yem ku ne am ci sa xalaatu bopp xëy na dana gën a yéwénal doxin wa. dina tax lu baax loo xam ne xëy na ñoom xalaatuñ ko woon dana tax mu am ca Omar Mbaw xalaatal benn xalaat lu baax nga dem wax ko amadi lam la cey dolli nga dem wax ko Serif Assane lam la cay dolli wax ko Diop lam la cey dolli nga wax ko Mamour Mbacke boo boolee yow ak li nga xalaatoon ak li la xalaat yu rafet yi mais day gën yow li nga xalaatoon yow kese mm-hmm. li ñuy bañ ci njiit nag malheureusement mooy li dal suñu njiit yi rawatina gouvernement bii fi nekk mm-hmm. duñu waxtaan ak seenu askan mm-hmm. duñu communiquer seenu askan mën naa ne waxuma la tàggu sax dama koy jëlale waaye yëgal sax duñ ko def seenu askan dañuy jekkat yi jekkat rek gis lu ñu xamul bu ko defee coow li ne kur ah, c'est vrai te bu communication bi jiitu woon xëy na loolu lépp du am te loolu tamit du du xaalis bu bu bu ndaw ay 40 milliards 45. xaalis boobu Sénégal ko moom. c'est beaucoup d'argent. du xaalisu Macky Sall du xaalisu ministère sàngam wala député sàngam wala directeur général sàngam. Mhm. xaalisu Sénégal la. li nga moom kay Omar Mbaw foo ma koy jëlee fa ma koy def yow mi ko moom war nga koo xam. wallaay xam nga xam nga lan mooy différence bi ñun ak tubaab bi gis nga Finlande boo fa demoon tey. Uh-huh. ministre bi. Uh-huh. buy xëy. Uh-huh. bus lay jël. ministre bi bu génnoon tey bureau dem si restaurant bi jënd. xaalisam lay fayee. ñun fii contraire bi la. fii moom ñun fii dañ lay dawal loger la nourrir la. lépp mën naa ne bakkan bi ngay nooyee sax daanaka moomoo ko. <laughs> moo tax de kuñ ci kuñ ci génnee ci gouvernement bi nga feebar. barki Demba Ndiaye gisuma ku ñu xaw ma dañ koo dàq xaw ma dañ koo falul dara lu mu bëggoon a falu. Mhm. mu génn di sànni xeer. waaw euh, soxna si nu mu tuddati. kan la ci. Euh, Aminata Touré. Aminata Touré ma ne suñu politiciens yi dañ ñoo yab. yow lan nga defal sam réew. mais même Diouf Sarr le fait mu génn créer euh, mouvement boppam. ñoom dañoo yab askan wi. yow loo defal sam réew. fal nañ la ministre premier ministre ñaataat. ministère de l'intérieur ñaata at. Mhm. xaw ma conseil économique social la wala. Ah. nga jiite ko ñaata ñu lay fay xaalis xaalisu Sénégal. Mhm. ngay dawal otoy Sénégal di tëdd ci këri Sénégal. Mhm. di taal courant Sénégal jugewul ci sa poos nga xëy ñu jëli loolu ñu la joxoon jox ko keneen nga ne lu tax du ci daal mais loolu fu mu tegu yow lan nga defal Sénégal ba tax nga ne da ngay falu te doo folleeku. kon ci folli nga taxaw ne diw mi ma faloon daa bon damaa iñaane dafa soxar. Sénégal ngay xas yow loo defal Sénégal ba nga occupé occupé ndombay tànk yi yëpp. Mhm. loo defal Sénégal. Mhm. ba Sénégal wërta xëy jël ko jox ko kereen moo tax ma ni suñu politiciens yi dañ ñoo yabta dañ ñuy fooyee. buñ ko nangoon ak ñàkk fayda. ci sa gis-gis warul woon nekk. lu muy nekkee yow defaloo dara sam réew amoo fëpp usine. déedéet mais defar na réewam peut-être lan am na bu bu mu occupé poste bi da am na ay affaire réalisation tegal sa loxo benn ma def na li waaw mais lam def du moom moo ko def Sénégal a ko def. Mhm. Omar Mbaw ma jox la bit si RFM ne la demal jëndal ma ci ay casque ak ak micro. Ah. yaa ko jënd wala RFM moo ko jënd. RFM moo ko jënd mais man maa man maa man maa man maa sonn dem. <laughs> boo sonn toon dem keneen dem. <laughs> non wooy la rek dama lay dama lay li nga wax. am na solo ah loolu mooy dëgg. yow nga occupé ñaata fonction ci yoo xam ne Sénégal ko jox. defuloo tout Sénégal ñu xëy fonction yooyu ñu nang ko jox ko keneen nga taxaw di tamka la ko joxoon dëmm. moo tax ma ne politiciens yi dañ ñoo yàpp te dañ ñuy fooyee ku nangu ñu lay fooyee nag da ngay fayda buñ ñu fontoo. Mm-hmm. nañ dem toogi te bàyyi Sénégal mu jëm kanam damaa war a falu nangam lañ ma digoon joxuñu ma ko dañ maa digoon assemblée joxuñu ma ko nangam ak nangam yow lu ne Sénégal jox na ko lu ne lu ne Sénégal jox na la ko wala danga ngaa bëgg falu ba dee bu fekkee da nga bëgg nañ la def roi wala reine nañ koy wax mu leer macha allah ah neexati na comme ni ma koy tàmm di waxee Amady Ndiaye sax kontaan mu ngi ree rek Amady yaa ngi déglu Mamor Mbacke macha allah xam nga lu neex ci jotaay bi des fois boo boo génnee sénégalais yu bëri da lay laaj numéro moor Mbacké moom lu mu wax am na solo. ndeysaan loolu. xam nga gis nga am réew bu la ci yàlla dimbalee nga nekk ci. Mhm. man dafa am lu ma bañ ci àddina bu ñu yàlla may ñu dund ba ci kanam nit ñi danañ ko gën a comprendre muy man bëgguma koy tirise bëgguma koy tirise mhm. man dama bëgg yow Omar Mbaw li nga gëm wax ko. macha bool xool sénégalais yi la ëpp li ñu gëm de loolu ba mu la ba mu la intéressé mhm. sénégalais bi ni mu amee sañ-sañu gëm ne biteel bii ndox a ci nekk mhm. dafa sedd guy mhm. yow nga gëm ne ndox mi dafa tàng jër mais waxal loolu pour man loolu mooy loolu mooy loolu mooy priorité bi Amady loolu mooy priorité bi Omar waxal li nga gëm defal li nga gëm bool xool nit ñi la ñu gëm ak la ñu weddi loolu boo ko defee da ngay tirise am na mbokk moom ma sa wax ne ma gama bëggoon daal boo toogatee ci rajo bi xam naa ne gëmoo nangam waaye del wax ci nangam del wax ci diw donte xam naa ne gëmoo ko ma ne ko dee ma del toog di fen ma ne ko man li ci sama xol laay gëm yàllante woon bu ma waxoon li ma gëmul junniy sénégalais jóg tàccu ma may ma xaalis yàllante woon ma wax li ma gëm junniy sénégalais jóg di ma saaga dinaa wax li ma gëm junni sénégalais jóg di ma saaga ma perte ña ma doon tàccu ak di ma may xaalis ndax lan wax naa li ma gëm man loolu mooy sama politique am na solo te kenn ku nekk am nga sañ-sañu wax li nga gëm c'est ça Sénégal du dëgg. am na solo. ay kon am na solo. jërëjëf Amady Ndiaye. <laughs> première partie bi buur na kon. première partie bi buur na.